sama nangam ku fi yablu sayaay barke wàccu laa jumboori jumboori yaay jàmbaar dawul xare yaay sama nangam àdduna ku fi yablu sayaay barke wàccu la yay jaaga mooy yaayam yaay jàmbaar dawul xare sa yaay ne na baax nga wali sa baay ne na baax nga luy matu gor bula la seene daaw ma ko yaayu amadi ee eh, sama